السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكلير البسوس وهابسي حياكم الله وعنيو جيين كسو ندار سناحو لكي عندك ابن مالك لنين برم بي برم أسماني كسوف مسامكو آرل كبوبم لقل كبوبم في يقية قل برك سيو الخدم كون كيف حمن تنيني بنغا مستوى كلو العربية من غا توب دار سناحو بي تحمني دار سلبو أما أما أم صلو نيو نيان الببا ابن مالك كون ابن مالك تفضل ñoo ngi teewlu bu baax a baax a baax barakallahu fiina wa fiikum alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala asalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, di jël nuyoo beeg ziyaara bi di ko jaarale ci sëñ Nuurullah incha allah mu jotale ko ñëpp bu ko defee ñu ñëw comme ni mu ko waxee ci sun dersu ñetteel ci ci téere bu ñuy wax naxu tatbiixi Euh, li Xaalid Abdul Aziz xafisahullah wa euh, kon ci ñetteelu ders bi ci lañ toll ñu doon wax aqsaamul kalima moom lañ doon jàng ñi jëloon ci ism mu wax ne saaniyan alfilu ñaareel bi nag li ñuy jàng ci aqsaamul kalima mooy alfilu waxoon nañ ne kalaam ci maanaam ci luxal arabiya lépp loo fi gis maanaam lu ñuy wax du génn ñett wala lu ñuy bind du génn ñett benn mu doon ismu wala mu doon fi'l wala mu doon xarfu jàng nañ lan mooy ismu jàng nañ ay alaamaatam léegi dañuy jàng lan mooy fi'lu jàng itam ay alaamaam ak ay aqsaamam wala ay am léegi nee ne alfi'lu huwa kalimatun dallat ala maanan fi nafsiha waxtaranat bi ahadi al azminati salaasa daal buñ ko waxee baat la boo xam ne day tegtale maanaa maanaam boo ko waxee rek dañ ciy déggee ak sens waaye maanaa bi bi fi nafsiha boo ko waxee rek amul dara lu koy dimbale pour nga mën cee dégg maanaa waaye moom kese boo ko waxee rek dañ ciy dégg comme tey boo ne ba bind na dañuy xam ne bind am na amul beneen baat boo utilisé waaw loolu day génn xaraf nga xamante ni moom moom moom faaw day ànd ak keneen waaw moom du jëriñ maanaa moom kese ci boppam léegi moom loolu boobu moom ak ismu ñoo ko bokk waaye dafa am beneen bu mu jagoo mooy waxtaranat bi ahadil azminati salaasa mooy maanaam moom day lënkaloo ak benn ci ñetti jamono yi jamono lan moo am passé présent futur mooy maadi mudaarion amr lu teew lu passé ak lu teew ak lu jublu si fi'lu fuñ ko foo ko déggee rek dina am temps yooyu bu ci ciy waaw ñett yooyu la al maadi wal xaal wal mustaqbal mu jox la ci misaal mu ne naxwu kataba yaktubu uktub kataba yadullu ala ala alkitaabati fi lmaadi bu dee kataba day tegtale am mbind ci jamono boo xam ne passé na kataba mooy bind na dafa bind ba pare nga wax ne bind na yaktubu mooy mu ngi bind wala dina bind yadullu ala alkitaabati yaktubu mu ngi bind yadullu ala alkitaabati fi lxaali day tegtale am mbind ci jamono bi ñu teew mooy maanaam mu ngi bind yaktubul muallimu masalan uktub yadul alal kitaabati fil mustaqbal day tegtale ak maanaam mbind ci lan jamono bi nga xamante ni moo jublu si kon ñett yooyu ñoo am di xaal mustaqbal muy misaal bi di kataba yaktubu uktub waaw léegi fi'lu moomu ñaata xaaj la am لأن يعني أقسام الفعل ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر فعل داي سيد لكو تي نيت خاج ماض موي لو باسي ومضارع موي لو خامتيني لو تيولا وأمر اك لو خامتيني مانام لو جبلو سيلا الماضي هو ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم أمر موي ندغال واه واي لو ورا نيو لاي دون سي كانام almaadi huwa ma dalla ala xadasin waqa qabla zamani takallum fi'lu maadi buñ ko waxee mooy loo xam ne dafa tegtale ci xew-xew am na lu xew xew-xew xew-xew boo xam ne waqa am na ba pare qabla zamani takallum njëkk ñu koy wax comme tey boo ne daraba wala kataba dafa bind ba pare nga door koo wax mu jox la ci exemple nahwa naxwu kataba bind na fahima dégg na dafay comprendre ba pare nga door a wax daxala dugg na xaraja génn na yooyu yëpp istaxfara jégalu na yooyu yëpp day am ba pare nga door koo mën a wax loolu mooy fi'lu maadi te gis nga lim la waxoon ne la bi nga ne istaxfara déggee nañ ci sens dalla ala maana aw dallat ala maana léegi fii si parce que wane nga ne dégg jéggalu gi leer na foofu jéggalu gi kañ la am nga déggee ci ne jamono bi passé la kon liñ la waxoon ne na wax wa waxtarana bi ahadil asminati salaasa feeñ na ci wuteeg boo ne woon Muhammad Muhammad tegtale na nit kuñ tuddee Muhammad waaye tegtale benn sens doo benn benn temps du àndul ak benn temps léegi alaamaatu li ñuy xàmmee fi'lu maadi fi'lu maadi la lay léegi la lay jàngal lan lañ koy xàmmee kon jàngal na la lan mooy fi'lu maadi di la wax nag nan ngay def ba boo boo ko gisee rek xàmmee ko mooy an yasluha li an tatasila bihi taa u tanisi saakina maanaam day yéwén ba nga xamante ni taa u tanisu saakina da ciy man a jokk taa u tanis taa boo xam ne day tegtale jigéenal te ñu sukkoon ko biñ sukkoon moom moo ko tax a jóg waaye bi nga xamante ni mu taxaarake la boobu moom day day dugg ci asmaa yi comme tey boo ne woon muslimatun taa boobu noonu taa u tanis la waaye doonut saakina mu taxarika la kon taa u tanisu na boobu moo ko tax a jóg boobu moo ko tax di wax ni ki boo ne woon xaamat xaama kese boo ko fekkoon ngay ngay sikki sàkka fi'lu la wala ismu wala xarfu yokk ci taa bi nga xool nga ne xaamat kataba nga ne katabat kon boobaa da ngay xam ne donte taa bi duggagul ca waaye mën na ci dugg kon dag naan fi'lu bii du fi'lu maadi maanaam fi'lu bii nii fi'lu maadi rek la mën a doon parce que fi'lu maadi moom ci la taawu taaw tanis di jokk waaw loolu lañ koy xàmmee dañ koy xàmmee maanaam taaw tanis man cee jokk benn nga fekk ko ci wala boo ko ci nattee rek mu mu dal mu mu nangu ko yóbbaale comme xaamat exemple yi mu la jox yëpp katabat fahimat daqalat xarajat istaghfarat yooyu yëpp nga xam ne kon yooyu ay fi'lu maadi la waaw ay afaalul maadiya la ñaareel bi ci aqsaamul fi'li mooy al mudaari'u المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده فعل مضارع ما الله خمنا دفا تكتلي كي خيو خيو بو خمنا يقع داي تابي داي أم داي أم من فعل خيو خيو بو في زمن التكلم كي جامنا بينكو يحمو أي مونجي أم أو بعده ولا قنا بينكو خيو بباره example نحو يكتب مونجي بند آه، يكتب يقرأ يدخل يخرج يستغفر يو يب أي فعل مضارع الله واه لغي xarina bi nag moo lay tegtalal ndax léegi nii la wala ci mustaqbal la fa ay xarina moo lay wanne la wax jii ñuy wax kii mu ngi koy def jamono bi wala wala wala da koy dina ko def ci jamono bi jublu si waaw mooy yaktubu mën na firi mu ngi bind wala dina bind raw mu ngi jàng wala dina jàng yadxulu mu ngiy dugg wala dina dugg dugg yaxruju mu ngi génn wala dina génn yastaxfiru mu ngi jéggalu wala dina جيغلو لول مضارع موخا موخا نين المضارع صالح للحال والاستقبال مضارع دفا يوين بور مانا مو دوخ سي نياري جامونو ييب تي موي حال لي تيو والاستقبال اك لي جوبلوسي ان وجد بو فكينه دانيو فك خارينا بوي وانه لي زمان بي مضارع للحال بابا مضارع مو للحال لي دون bu fekkee ne dañoo fekk xarina boo xam ne day ràññale na lil istiqbaal la madaari ma lil istiqbaal lay lay doon bu fekkee ne nag fekkuñu fa benn xarina boo xamante ni mooy ràññale ne lii maadi la wala mudaari kon boobaa xaal la ba léegi ci li nga xamante ni moo gën a lëng li gën a lëng kon booba nit ki mu ngi def li ngay wax boo ne woon yaktu bu mooy mu ngi bind fekkee ne benn xarina ñëwul bu xarina ñëwee nag buy wane ne lii xaal la boobaa xaal la bu xarina ñëwee ne lii mustaqbal la mustaqbal la bu fekkee ne benn xarina ñëwut li gën a wér mooy li gën a lëng mooy ñu ñu ne kon xaal la waaw loolu loolu euh, boo demee ci téere bu ñuy wax xamul awaami li suyuti nee na leeral na ko foofu kon boo ne yaktubu zaydun al misaal yi mooy lool zaydun mu ngi bind léegi nii mu ngi bind al aana gi mooy xarina bi الفعل يكتب هنا للحال لوجود قرينة تعينه لذلك وهي اللفظ الآن نانا فيني يكتب فيني حال في سنة في معنى فعل ما فعل مضارع بو خامتاني ني مغي دوخ ني سي جامونو تول وا باسكو لان قرينة موكو قرينة بوكاي رانيا لنا Euh, buy ràññale ndax dafa am xarina buy ràññale ne lii ci xaal bi ñu toll la te mooy al aana léegi nii yaktubul aana mu ngi bind léegi nii saw fa yaktubu mën naa am dina bind mën na am dina bind kon kooku bindagul kon boo ne saw fa yaktubu zaydun mooy mën na am zaydu dina bind al fi'lu yaktubu huna lil istigbaal pour jublo si la lu tax li wujudi xarinatin tuayinuhu li dalika wa hiya sawfa parce que dafa am xarina bu koy ràññale buy wanee ne li jublu si la te mooy mustaqbal te mooy fa bi nga utiliser kon xaal bi mu la waxoon al istirbaal bi jox na la ci exemple waaw sawfa ni muy indee boo ne woon sa yaktubu itam noonu lay demee rek waaw kon boobaa lil istirbaal lay doon euh, kon bu ko defee comme que ñaareelu xaaj bi ci aqsaamul kalima jeex na te mooy fi'lu jàng nañ al ismu jàng nañ al fi'lu mu des al xarfu incha allah ñu bàyyi ko ba ci ñetteelu darsu bi wala ñeenteelu darsu bi incha allah ñu daal di koy jàng waaw wasalaamualeykum wa rahmatullah léegi wax na la lan mooy mudaarion waaye dalay wax lan lañ koy xàmmee mu ne alaamaatu ay mandargaam an yasi'a wuquuhu ba'da lam aw siin aw sawf day wér mu tàbbi gannaaw lam wala siin wala sawfa bépp kalima boo gis mu ñëw gannaaw lam wala gannaaw sawfa wala gannaaw siin bu sikki sax naan amri la wala mudaarion la wala leneen kon xam nga léegi ci fi'lu la ñuy jàng ak saamul fi'lu la ñuy jàng bépp kalima boo gis mu ñëw ci gannaaw lam wala siin wala sawfa bul xalaat ndax ismu la wala xarfu boobu fi'lu la waaye fi'lu bi sax dafa am fi'lu boo xam ne moo jagoo ñëw ci gannaaw yooyu te mooy al fi'lul mudaari mu jox la ci misaal naxu qawluhu taala lam yalid walam yulad yalid fi'lu mu la parce que lan dafa ñëw ci gannaaw lam yulad kadalika fi'lu mudaari la parce que lan dafa ñëw ci gannaaw mu euh, lam mu jox loolu mooy exemple bi lay jox ci fi'lu mudaari ñëw ci gannaaw kalima bu ñëw ci gannaaw lam mu jox la ci beneen exemple ci sa yaquulu sufahaau min annaas qawluhu taala sa yaquulu kon saa gim la waxoon yaquulu da ngay xam ne fi'lu mudaari la qawluhu taala kadalika sawfa astaghfiru lakum rabbi gis nga sawfa astaghfiru astaghfiru fi'lu mudaari'u la kon yooyu noonu la la doon jox exemple waaye nag mudaari'u sax mantu ñàkk ñu tàmbalee ko ci benn lettre xaraf ci xaraf yii di ñëw mooy li ñu tuddee xuruful mudaari'u nga xam ne ñu ngi ko dajale ci baat bu ñuy wax anaytu am na ñu ko bo te mooy alif nuun yaa taa am na ñu koy tënke itam na aytu waaw waaw na aytu wala anaytu boo ci wax baax na waaw léegi loolu mooy hamsa ak nuun ak yaa ak taa naxwa aktubu aktubu fi'l mudaari la waaw kon gis nga tàmbalee na ci lan hamsa naktubu naktubu fi'l mudaari la te gis nga ci lum mu commencé noonu yaktubu mu mudaari la ci lu mu commencé yaa taktubu fi'lu mudaari la ci lu mu commencé taa kon gis nga faaw mu mudaari buy ñëw moom ñeenti xaraf yi moom du ñàkk mu tàmbalee ci benn waaw mooy anaytu waaw léegi nag euh, baat yi nii te mooy xurufu mudaari yi yëpp dañoo dajale dajaleñ ci benn aaya boo xamante ni yépp fen ay fenlul mudaari la te xaraf yi mu wax la te mooy anaytu daje nañ ci benn aaya li suñ boroom wax ne atajalu fiiha man yufsidu fiiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuxaddisu lak qaala inni aalamu maa la taalamuun atajalu gis nga tajalu ñëw na ci aaya bi yufsidu ñëw na ci aaya bi wa yasfiku dimaa yaa gi ñëw na ci aaya bi kon taa ak yaa jox nañ la ci exemple wa nahnu nusabbihu nusabbihu ñëw na ci aaya bi te mooy noon gi wa nu xaddisu noon bi itam ñëw na ci ci aaya bi qaala inni aalamu hamsa bi ñëw na ci aaya bi maa laa taalamuun gis nga taalamuuna ñëw na ci aaya bi kon tajalu fi'lu mudari'un la yusidu fi'lu mudari'un la yas yasfiku fi'lu mudari'un la nusabbihu fi'lu mudari'un la nuxaddisu fi'lu mudari'un la aalamu fi'lu mudari'un la taalamuna fi'lu mudari'un la te boo ci xool day dalé ci xuruful mudari yi ñu wax loolu aya bi dajale ko yëpp ci ci bem même même aya kon lolu moy fi'lu mudari wax na la ko ak nan lañ koy xamé kon ñu wara ñëw ci fi'lul amr nee al amru huwa ma dalla ala xadasin yutlabu husuluhu bada samaani takalum al amru buñ ko waxé moy ma dalla ala xadasin moy lo xamanteni ni na xew-xew bo xamné yutlabu husuluhu dañuy sàkku mu am banda zamani takalum gannaaw wax bi da ngay wax ba pare mu door a am moo xam dangay wax mu wax ji daanu rek mu am wala dina xaar dina yàgg loolu yëpp ko intéressé wuñu mais daal balaa ñu koy wax moom balaa ñu koy def moom xew-xew bi balaa muy am moom wax ji dafa daanu ba pare naxu uktub bindal nit ki bu bindoon ba pare loolu leneen la maa di la jàng nañ ko waaw iftax hubil moo xam dina ubbi ji kañ ijlis toogal istaxfir jéggalul kon yooyu yëpp ay fi'lu amru lañ amru nag lan lañ koy xamee bu nekk da lay jox xaddum ba pare jox la alaamaatu alaamaatu majmuu shay'ayni moom amru faaw ñaari am ci dalaalatu ala talab mooy day tegtale talab ak càkkuteef comme boo ne uktub bindal da ngay ci nit ki mu bind ñaareel bi mooy xabuluhu yaa al muxaataba day nangu yaa al muxaataba dugg ci dégg mooy jigéen bi ngay wax ak yaa boobu noonu day nangu mu dugg ci fi'lul amr ñaar yi boo ñëw natt ci dalaalatu ala talab mooy xool ci talab te fekkoo ci yaa al muxaatab boobaa sax fi'lu bi du tudd fi'lu fi'lul amr boo ñëw natt ci yaa al muxaataba te te te boo ci xoolee talab amu ci boobu doonut fi'lu fi'lul amr kon ñaari yi day da ciy daje dalalatu ala talab ak xabulu yaa ul muxaataba exemple naxu comme nga ne uktub bindal hada fi'lu amrin baat bii nii te mooy uktub fi'lu amrin la ndax day tegtale saako te mooy bind gi wa yaxbalu yaa al muxaataba day nangu yaa al muxaataba fa yasihu an taxuula uktubi bindal kon gis nga kon boobaa moo lay wanne uktubi uktub fi'lu amrin ونحو قوله تعالى فكلي واشربي وخري عينا جسم كلي واشربي وخري يويب أي فعل عمر بسكا أما ياء المخاطبة تتكت لنا ساكو ساكو نغتي مم مليك ساكو نغتي مم منان ساكو نغتي مم مسير أبخل مسير دا فالكلمات كلي واشربي وخري أفعال أمر أي فعل أمر لن لأنها دلت على الطلب بأنها تكت لنا كي وقابلت يا المخاطبة نغنى يا المخاطبة kon tekkiwul ne itam nag euh, maanaam yaa ul muxaataba bi heure bu ne danga ko ciy fekk déedéet mais da boo ko ci nattee mu man ci am rek baax na mu ne fa in dalat fa in dalat il kalimatu ala talabi walam taxbal yaa al muxaataba naxwu sahin bi maanaa uskut fa laysat bi fili amrin wa innama hiya ismu fili amrin bu fekkee ne kalima dafa tegtale ci talab sàkku walam taxbal yaa al muxaataba te nanguwul yaa al muxaataba yaaw jigéen ki nga jàkkaarloo te tey wax ak moom naxu kem nga ne sahin noppil noppil day dangay sàkku ci nit ki mu noppi bi maanaa uskut noppil fa laysat bi fi'li amrin loolu du fi'lu amr wa innama hiya ismu fi'li waaye ismu fi'li amrin la lu tax nanguwut yaa ul muxaataba dugg ci mënoo wax sahi noonu sahin rek la noonu lañ ko binaale kon koku duñ ko tuddee fin la amal donte amna talab benen bi mune wa in qabilat ya al muqataba wa lam tadul ala talabi nahwu taqumina fa laysa bi fi'l amrin wa innama hiya fi'l mudari nee wa in qabilat bu fekkee ne dafa nangu mom fi'l bi ya al muqataba nangu ya al muqataba dugg ci wa lam tadul te ala talabi ci talab nahwu kam nga ne taqumiina da ngeen jóg yow ndaw sima ma fa laysa bi fi'l amrin lol doonut fi'l amr wa innama hiya fi'lu mudaari'un fi'lu mudaari'un la te gis nga lim la doon wax taa aruful mudaari yi feeñ na ci gis nga fi'lu mu amr faaw mu dajale ñaari dalaala ala talab ak xabulu yaa al muxaataba waaw mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo bi ba pare ñu ngi ñaan nga bës si fii nii ñu bind après nga activer cloche bii nii mën nga tamit